ab taalibeem di xaritam di ko jaale bu waax di ko jaale yoonu murid yëpp di ko jaale kuréel bi nga xam ne moom la jiite woon jiite woon mooy di ko jaale nag ummal islam yi nag rek ndax ñëpp la amaloon jàmm ab jëflanteem yaatu na lool te rafet nu di ko jaale ñëpp xam naa leen ci xam du jar guddal ndax mooy li si ñëpp xam te sëriñ bi daana li ñëpp xam loo ci wax jarul guddal li ma ci xam mooy li ci ñëpp xam rek muy taalibu Sëriñ Tuubaa boo xam ni dafa ànd ak mbooloo di liggéey Sëriñ Tuubaa jiite leen jiite yoon wu wu wu aw yoon ñu bokk di liggéey Sëriñ Tuubaa diggante liggéey bépp liggéey boo xam ne bii ndigal ñëw na ñu jox leen ko dana ca taxaw taxaw taxawin woo xamante ni wii ba mu antu antu goo xam ne dana rafet wala koog di jàng xasida yi di liggéey Sëriñ bu baax loolu mooy li nga xam ne mooy li ñëpp xam mooy murid saadax di murid boo xamante ne bi liggéey Sëñ Tuubaa dong ko ñoroon loolu la wane woon te loolu it kenn gisul mu gisuñu mu def lu ko dindi euh, yàgg na yàgg nañoo jëflanteeg moom yàgg nañoo ko xam bi fi Sëriñ Saliou ñëw ñëw ñu ñëw ci daara yi liggéey bi nga xam ne ñu daan ko liggéey ci daara yi liggéey daara yi ci bëree bëri ci seen loxo la ko sëñ bi daan jaarale ñu di ko rafetal dina fokk ci daara yi euh, di liggéey liggéey bu rafet wax dëgg yàlla kooku bu demee ba tey sunu borom jëlee ko fi loolu la muy tekki mooy xàndoor bu damm ci waar ndax ba bu muy dem day liggéey jiite la muy jiite jiite mbooloo li muy am am kum defloo teewul di daan defal boppam day nekk ca liggéey ba day nekk ca joxe ba day nekk ci lépp loo xamante ni bii liggéey bi yoon wi la bi joxe ko moo cee jiitu du ñu def leen ko ba waaye da cee jiitu nekk ca ba sunu borom jëlee ko fi kon noo ngi xànn nu nga xam ne jàng xànnoor bu dem ba ci waar rek la noo ngi koy jàll ñëpp di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala ci kattanam ak mbaaxam sëriñ Tuubaa teeru ko ci ajana yu kawe ya yal na ko yàlla jégal yal na ko yàlla yërëm yal na ko sëriñ Tuubaa teeru mbooloo mi nga xam ne ñoom la jiite woo nit eh, yal na yàlla teg loxo ci ñoom sëriñ Tuubaa teg leen ci yoon wu gën a jubam leen tegoon ndax eh, lépp lu jub am na lu ko gën a jub lépp lu baax lu ko lu ko gën a baax nga ci gànnaawam yoon wi mu tegee woon daan ci dox li muy dox dox dox wu ko gën a jub am na lu ko gën a dox am na wu muy jub jub ko gën a jub am na yal na leen yàlla teg ci yoon wu gën a jub boobu leen tegoon ci kàttan ak borom bi parce que Sëñ te dimbale leen te kàttanal leen te tawfeexal leen donc koy jaale it Sëriñ Yuusu mi nga xam ni moo ko moo ko moo moo ko wutu donc mm, koy jaale te di ko ñaanal sunu borom may ko mu am ndam lu ëpp li li Sëñ Aatu amoon ndam lu ëpp li Sëñ Aatu amoon ak ñim ko àndal yàlla nañ ko am ci kàttan ak bi